léegi maqaama xaafira bi jeex na weer di al maqaamatul haadiyata asar comme ni nga xamee maqaama bu njëkk fukkeel zuhdiya lay do waade lay do maqaama bi lool la benn waadekat bu feeñ rëyu ba mu waalee ba la mu doon wax dugg ñëpp xam ko am histoire ak ndawal buur la ca dëkk ba ak nit kon ak ak am ko am am ko am histoire ak nit te kooka nitu service la moo indi ko ci chef bi chef bi bëgg na jëfi sama nit lay faral waaye kat bi dala koom wax ko wax yu tax mu àtte lay dëgg. li daal mooy maqaama bi haddasa waxtaan na alxaarisu xaaris ibnu hammaam xaal mu ne xoniitu hippiyeloon naa mu askamtu waxtu wa ma xereñee mooy ba ma rafetalee tadd biir yi sama settantal bi ma àggee ci def xilaatal sama bopp ni ma tëralee sama biir loolu la mu akkam dox soo ma xereñee tabbi biir yi sama bertantal waxaratu te ma xam xabiil min dabiir yi maanaam xabiil yi sama la min dabiir yi ci sama lor xam ne xàmmee naa sama gannaaw sama gannaaw mooy li may amal njëriñ ak li may lor bi ma demee ba àgg boobu man dama soppoon damay damay teeloon bi an udxiya ci may xerewlu ilal hebaati jëm ci waade yi dafa am jamono boo xam ne déglu waade jam na ñoroon lool loolu sax moom ma dëdd mu nit fu am ma sànni al kalima baadi al muxfidaat yi daway merloo yenn wax yi nga xam ne yëngat fi nay jataay lay def yooyu man may daw waxee ko wala daw déglu ko te waale yi li ataxallaa ngir naa takkaayoo bi mahasinil axlaaq ci way rafeti jikko nga xam naa ne nit moom jikko jaa ko xame te ñuy waade ñooy tegtal nit jikko yi yiwee su may faral di déglu seen wax nañ te foroy mën na cay jële jikko yu rafet waa taxallaa ak ma féer même maa ci lu xam ne yëfi mu dana mu màndargaale ba dex laa ko ci rab ak bépp jikko ku ko jikkoo daanaka duni naa ko wama simtu dañu ma aaxudu di jàppee nafsi sama bakkan bi hadal adab ci bile yar dañu ma te te sama bakkan te ko gàcce lii waaw uxmidu may fayee bii ci moom jamratal xadabi xalu mer même su mer dikkee sax danaa seet nu ma ko saafaraa nu bokkul ak fayuwante ak bu ñaaw nit su fekkee daf la merloo nga xam bu baax kii comme am matériel la waaye li nga gis nii ba mu yëngal sa xol boo ko ci kenn kenn kenn ku dul yàlla nga delloo ko yàlla te xanaa war laa am jàmbaar ak xeex ak dogal nga jàppee ko muy comme ab espèce muñal ko dana la yomb lool muñal ko dana la yomb lool delloo ko mu te loolu tëddewu moo ko def ci nit wala xam-xam moo ko def ci nit wala boo yow am nga lu la naqari lu baxoo ci nit gis nga ne yàlla mi ngay jàmm bëgg fayam bëgg bëgg ngërëmam lii santaane na ci muñ te boo muñee fayam nga xëllëg mooy gën ci yow xol bu sedd bi nga xam tey boo fayoo mm. <laughs> boo muñee fayam nga xëllëg mm. mooy gën ci yow xol bu sedd bi ngay xam ci yow boo fayoo mm. te wax dëgg yàlla xam li gën ci yow moom gën a tànn loolu mën na yombal yëpp xam nga wax borom xam-xam ñoo koy wax naka noonu mbir su fekkee dafa gaar muy lu la neexul lu xam ne buntam fitna mën na jaa ubbeekoo soo fayoo leneen judduwaat dafay gën di màgg di gën di màgg ba jur loo xam ne ku muñu moom dana boo ci seetee dana fa affaire <laughs> na tey yëpp jar na tey dajeeg yàlla de kiñ tooñ mu hmm. muñ moo gën nga dajeeg yàlla de kiñ tooñ mu bañ hmm. la <laughs> ko war hmm. la ah, ko war seetlu nga ni mu ko waxee nga dajeeg yàlla de kiñ tooñ moo gën nga dajeeg yàlla de ki tooñ nga dajeeg yàlla de kiñ tooñoon mu muñ ah moo gën nga dajeeg yàlla de kiñ tooñoon mu fayu te loolu bu baax a baax waaw mu ne loolu moo tax yu bëree bëri ignorant ñi may dégg ci waatekat yi danaa ko dee jéem a jëmale ko muy lu may amal njëriñ wala muy dara doy mu wala muy dara fitna wuuti may fayee bi ci moom jamratal xada bi xalu mer xata saara bu mujj atata bon jikko jikkoru fii jam si ba ànd jikko baabe li tàggatu naa ji loolu moom boo demee jërëwul bayaan dama ko fàtte waaye ay mbir la ay dénkaane la bi ne dafa xat li ma foog ne fa la nekk mooy zoratu boo xaar ku doon dénk benn waayam naan ko boo demee boo gisee nangam bobolaal boo gisee nangam bobolaal boo gisee nangam bobolaal si biir dénkaane yaa te ñëwu daal mooy day xàgg rek daal di jël kanamu ko bu àggee ci sa gémmiñ gi daal mm. ba yàgg ja comme mburu lay doon ne dëj bi mooy nax mm. waaw bu dalee xeet soo ko faywul mm. <laughs> dalay métti lool xam nag boo ko muñee bu njëriñul bu ñëwee rek dafay mujjee sa bànneex lool <laughs> waaw dëj bi ma ko ah mooy nar waaye bu ma ko gisee woon xañ na bu ma feexee tër ko ndax téere bi moom moom gurowul bayan man li ma foofu mooy gërëm su ko xan ci la nekk ay takkatuma daal moom dégg nga xataa xal falam maa xalaltu ba ma wàccee di riyi ba ma demee ci dëkk boobu ñuy wax riyu dëkk bu cosaanu la faxru diini rabi borom xam-xam bu rëy boobu foofu la waqad halal bi tibirun fecc naa hibal xëyi fereg laye biir mooy ñora bi su ma demee rëyu fekk booba nit ku ñor la wa arab su ma xam alxaye jaan mina layi ci bu ma xam ne jaanan bu wala wa arab su ma xam alxaye dëgg mina layi ci neen booba ràññeeku naa raay bi gis naa bi ay ci rëyu laata bugratin jëmmi ak suba teel subratan mbooloo fi ibri sumratin ci gën a meen mbooloo dafa am benn suba tuy ma gis ñaa ngi def ay musul de def pari mbooloo pari woom te ñoom mun tasiroo na way tasaaroo lañ intisaaral jaraji kenn tasaaroo jiir ya ñi a ngi bi ñi a ngi bi bor bu nit a fa génne waaye ñun ñëpp ay njëriñ buñ génnee mm. ak lu ñuy bëri bëri bëri bëri mm. ñëppay bokk su ñaan di def mm. waaw ah yow yëppoon naasu kalfaratin mabsuusi ak ka annahum jaradun muntasiru xam nga lu toll bu ne bay tëb rek benn mu ne daaw baram boppam bu ay njëriñ nag ñëppay bokk buñ jublu alquran dafa wax waxaat ne kaan na woon siraatun muntasir bu ko seetloo ne kenn du xam ko muy mel ni alfaraasu moom waaye bu dara des lu may dem fañ leen soxlaa ne ñëpp koy bokk buñ ci loolu dañoo siraatun muntasir kanam nga xam wa muntasiroo ne woom intisaaral jaraadi kem tasaaroo njéere ya wa mu tënnoona te way xalu nañ mooy ñuy daw lañ itinaaral jiyaadi kem ay fase góor ñu ngi daw bu baax mel ni yàkkamte am fi àgg fi jëm wa mu tawasifoona te way melalante lañ waane dan waade kat boo xam ne yàqasilo yàqasiloona woo danañu ko jublu ñu ne dafa ab waadekat buñ jëm ñu ngi ko naaralante ci seen biir bu mu tawaat bi wane te way melalante lañ waaye daan waalekat boo xam ne yaqsidoona wa danañu ko jublu wa yu wa yuxilloona te ñuy wàcce ibna samoon ak kuñ naan ibnu samoon ku ràññee ko woon ci mën a waade la doona woo bëggee ñu ne waalekat la boo xam ne fi mu àgg ibnu samoon àggu fa xaraa bi dana ci wax dara falam yettakaa at nii diisut ci man méttiwut ci man an uqaasiya ba ma jàppu hanteer at laaxita aji coow wa axtamila tama hen at laaxita aji naj listimaayil ma waaxet yi ngir bëgg déglu waade yi waxtiyaaril waaxet yi ak tànn ak neex gi ma neex waade neex ak kii niñ ko ma nim si dégg tax na ma dugg tax na ma walanteeru fokk si rek ma booxante su boobaa nag liñ ma naan yàgg ma gaaña li may puusante tax na loolu métti wut ci man falam yetta kaa ni métti wut ci man listimaayen waaxe di ngir bëgg a déglu waade yi waxtiyaarin waaxe di ak aji waade yi métti wut ci man an oqaasiya ba ma jànkuwante allahi taaji coow ku ma naan dëgg ku ma am gàj ma ku ma ku ma am defal nga ma lii waax tamit la ak mayenu adaaxi ta aji naj mooy fi ma faal xabtu ma gaaw bokkut ak asbaatu nag xaa asbaa bokkut ak ba asaare faal xabtu ma gaaw ithaabal midwaati gaaw ak gëlëm ngay xomatuwaa koor mu ne ma daw dox bu gaaw comme gëlëm gu ma wan xaastu ma nasu fii silki jamaati ci buma mbooloo ma ma dugg ci nit ñi bokk ci ñay def attaam day naa ba ñu bëri ilaa naa di ci penji mu xam ne jamaa dajale na mu alamira buur wal maamuur ak buure dem penji moo xam ne kilifa ya njaboot ya ñëpp la ko waasara te mu dajale annabiha aji siiw wal maamuura ak fay boy ku nëbbu ku kenn mos a dégg ko fa gis ko daan mos la ko gis da nga ko fa gis wa fi wasati haalatihi nekk na ci biir péncam weeram mooy géew ba wa wasti ahillatihi ak digg ay teru teem nekk na ca seyxun ak ak góor ñu ngi dee benn daayira bu xam ne ci la kilifa yi toog kilifa yooyu nag la taxusunni tayallitu wal hulaat mu ne man tay ak yenn kodday du lu may nax ci nit kam fi tayalliti min saqimin ajrabi mu ne jëmm ji bu feebaree ram nga teg ci tay bu rafet taxul wér gi yaram ne fa ah ku dajeeg yow ci duré bi na ko doy ci yow rek ah aynaaka min aswaabihi fi jannati wa yadaaka min axlaaqihi fi sabsabi xam ne boo xoolee sajda bi sajda bi sa bët yi nekk àjjana ndég ni rafetee waaye boo bëgg a jëflante moom sa loxo yi nekk ci àll bu kese nag ndég du ñàkk jëriñ doo man defewu dara aynaaka min aswaabihi fi jannatin wa yadaaka min axlaaqihi fi sabsabi woo wëtte moom yet dama mu ngi wóoral bi wax din ci waade woo xam ne yet bi dana mu saafara asu dóora dënn yi wa yu léenu te dana mu noyal asu xóora xel yi mel ni dëkk xol yi mel ni dëkk wala na doy mu nga waay waade waade yu leeral sindil ma xel yi mooy mooraw ibnu samoon ci mën a waade mu ne ñu dawa daw fa sami'tuhu ma déggu ko yaqulu muy wax wa qad ibtadanat te mbir fitna woon na fii ci moom alaqulu xel ma dégg muy wax ee te li muy wax dugg na ñëpp mu ma axraka bi ma yaxurruka hmm. wa adraka bi ma yadurruka ba ibna aadama ey yow doomu aadama maa lëf lu màgg axraati xiir na mu la bi maa ci lu xam ne yadurruka da yadurruka dana mu la nax àddina mi nga xam kër ak naxaat la moom rek nga jëmal ci nga nangooy xenu wa adraka te mu xiir la xet ba tey bi maa ci li nga xam ne yadurruka dana mu la lool li ngay bëgg de engagé du lay gaañ rekk la wa adraka te mu xiir la bi maa li nga xam ne yow durruka dana mu la lor waal hajaka te mu sopp loola bi maa ci lu xam ne yut xiika dana mu la beewloo xaali haddina ji day indil beew moom rek ka sopp de waaw hajaka te mu bégloo xée la bi man ci koo xam ne yut riika dana mu la xaabaaba ku lay taggee loo ne wut ci yow ku nga mu la bëgg ku nga mën a ki lay dee waaw hajaka te mu bégloo xée la bi man ci koo xam ne yow dégg dara mun a xabaaba tax lii yaa ngi hittewoo yaa ngi hittewoo bi maa ci loo xam ne yoo xam nii que dana mun a sonnal alxanaa u mooy lisimam lay indil coono loo rek di la sa yitte jëm wa tuhmilu ngay neenal maa li nga xam ne yaa nii que dana mun a jëriñ lay jëriñ nga de ko watan si ma da génn su meegu an xaw si taaddi ka warit xalaat sa jàggati watarta di ngay làmbaayoo alxir sa xiir alladi xiir mi nga xam ne yur di ka dana mu la alal toujours rek fiñ la xemloo da nga koy bëtt nga jàggati ndere xiir te mi nga xam ne moom nga toppate da lay xal watan si oo da nga génn fii xaw si taaddi ka ci xalaat sa jàggati watarta di te ngay làmbaayoo alhissa xiir alladi xiir mi nga xam ne yu di ka mu la halak fiñ la xem loo toujours da nga koy romb jàggati te bëgg-bëgg ñàkk a doylu mii halak nit moo la ko yóbbee laa soxta ne bil kafaaf bi ci kafaaf kafaaf mooy xam nga loo jàllee xam nga foone xam nga loo sobu yaa ngi lekk ci misaal li nga xam daal mën nga cee dund loolu soo ko doyloo mën a toppatoo li tax ñu bind la ñu bind la soo ko doyloowul buñ la duyaloon suuf si ba mu feete du la tax a doylu loolu la yow boo ko amee du la tax a doylu فغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها فغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها la taxtane wa den ngay doyloo bil kafa mi ci kafa wala tamtane wa te den ngay terew min al haram mi ci lu haram wala tamtane wa te den ngay déglu li la li leen raati jëm ci waade yi wala tamtane wa te den ngay jajjoo bil waaye di ci tëkku yow li doy doyloo wula ko li ñu xaaye ba wula ko nangu woo déglu ki lay laajee biir tëkku jajjo laa tamtani o den ngay doyloo bil kafa bi ci kafa wala tamtani o te den ngay terewu min al harami ci lu haram wala tamtani o te den ngay déglu lil hadaati jëm ci waade yi wala tamtani o te den ngay jajjoo bil waxe di ci dem la bu ka sa baax daal anta taqallaba mooy ngay jàllar beku maal ëwwaaye ànd ak neen yu dul dara yi xam ne yu fi bànneexi bakkan la yooyu daal ci nga mën a xenu sa xol boobu la xenu sa làmmiñ boobu la xenu say cër boobu la xenu yow xelaatoo lu jub defoo lu ñor waxuloo dabuka sa baax an tataqallaba mooy nga jàllaleku maa la waaye ànd ak bànneexi bakkan yi wa tax bi ta te nga dajjitu mooy làmbutu xabatanasuwaa kem dajjitu gëlëm gu béppee da ngaa mel ni rek ku kenn waxalul loo leer waxam mu ka sa aba mooy nga sonn fil ihtiraf yi ci faggu wataj maa ak nga dajale ak turaasa dono lil wurraasi ñaar way doon yi sa hitte mooy dajale xalal xalal boo ko dajalee ëllëg boo deexee ñeneen ñoo koy doon lekk yow yaa xamee coono nguur bi boo lëgee nga bokk ci xisaab bi te tiraanga yaam ngi bokk la ab xayta maalaka mirasan li warisihi yaa layta shi'riya ma abqaalaka al maalu der der waawa al qawmu baadaka fi haalin tasurruhumu fa kayfa baadahum wa darat bika al haalu mallul bukaa fama yubkiika min fama yubkiika min ahadin wasuukima al qiilu fi l miraasi wal qaalu abulaad yujibu ka dana la yéemuloo atakasuru hëppalante bi maa ci li nga xam la day ka nekk na fi yow yi nga dajale gaay damoo suma nag sàngam suma oto sàngam suma kër sàngam suma tool sàngam suma terrain sàngam yi nga foog ne mooy mbir ah yujibu ka dana la yéemuloo bi maa ci li nga xam la day wala taskur leen ngay fàttaleku maa bay ne rek ci sa kanam waaye nag sa kanam nag kanam yàlla do sa yoon newu wata saa yaa dox abadan faw li xaaray ka ngir sa ñaari xur yi te mooy sowatul batni wal farj loolu rek mooy sa mbir <coughs> namaa jot ci ndaw si de namaa de ba lekk alal ji de rek rek mooy sa watanaa yaa ngi dox abadan faw li xaaray ka ngir sa ñaari xur yi wala tubaali di ngay faale alaka ndax sa njëriñ la ndax ñaan la mooy sa la am alayka wala war la wala lor ko tegee sa kaw yow xelaatoo lii dana baax ci yow am du baax ci yow daal waaye na ko xawaa bëggee rek atadun no ndax da ngaa jot ne an naka nuy biir te tura ku xesi na laa ku ñu neenal waan laa tuxaasab ak bu defu lay sab xatan ëllëg yow da nga xool ne dañ laa bind rek ëllëg sa mbir kenn du loolu boo ko ko foog de ayaxsibu linsaanu an yutraka sudan xanaa ni xanaa du nit dafa foog ne moom biñ ko bindee nii dafay doon kuñ bind ci ren rek alam yakun nutfatan min maniyin na du ab toqantu ndox ci la cosaanoo bayee ko ci ak nit mu sotti ko ci ab ci ab barab cim nit ci nit su ma kaana alaqatan mu dem ba bay lu mu dee fa xalaqa fa sawwaa dina ko baax a ko melale ko nañ koy mel mu ne góor sotti wala jigéen ju sotti mooy fajaala min zawjayni zakara wal unsa alaysa dalika bi qadirin ala yuhyil mawta ki jaar ak yow boobu su la waxee ne dee dama laa delloo ci geneen dund war ngaa xam ne mën na ko dëgg-dëgg nga mën na ko dëgg-dëgg ab sax tam wala da jot mu ne am nan moo tax yaqbalu dana mu nangu arusa nger wala nga foog ne xalal man nga koo dajale ba joxe ci lu la teree dee déedéet am yu mayisu wala dana jàqe moom dee baynal asari diggante gaynde warasa ak doomi ko jiir wala ñoxor xopp gi ak kiñ naan xam na lu ne ba nga foog ne dee xam ne na le am su may am su mayisu dana mu jàqe baynal asari diggante gaynde warasa ak doomi ko jiir kallaa déet déet déet mbir mi di wallahi giñ naa ci la yet maa du jañ almanoona dee maalun halal wala banoon dee bu xasee dikk halal ju bëri du dara ay doom yu wër borom du dara wala yet bon te du jëriñ alal qubuur ñooñ bàmmeel ñooñ bàmmeel yi war amali dara jëf almabroor jëriñ ñu rafetal te itam bàmmeel jëf ju baax rek fay amal njëriñ nit waaye bàmmeel kenn du fa gis kenn du fa gis àll bu tuubaa li man ñaar na ka nga xam ne samia dégg na lii wa waxaate mu mokkal ko waxaqaqa te mu dëggal maa li nga xam ne daa wate na ko wanaha te mu tere an naf sa bakkana ni wali ba neew bakkan ki am san mooy koo xam ne dégg na waa di ko te itam li muy woote te mooy njaam mu fexe ba mu dëggul ci moom mu xeex ak bakkanam wattane ku ko hawa ko tuba texe li man ñaal na koo xam ne samiha dégg na wa waxa te mu mokkal waxaqa te mu dëggal maa li nga xam ne iddaa woote na ko wanaha te mu tere a nafsa bakkan wa ni laa wasi baneex bakkan wa alima te mu xam ne annal faisa nakaa ji texe man mooy ko xam ne irhawa jajju na waa ak naka luy mbir laysa lil insaani ñaalu nit illa ma saa dara jëfam waa na sax yow jëfam nag safa yuraa xadina ko wanees lii la wax su ma sadda topp mu sadd in saada wajilin saddak aji bi sawtin ci baat sajilin bu daa ji mooy baat bu neex bu tabax naa baax na mu ne summaan sada topp mu sadd moom waale kat bi insa da wajilin saddak aji jàq bi sawtin ci rajilin guraaji xiir mooy guraaji yanji ba mu ko dee waale kat bi mu waxee fii le commencé de wéy wéyi ragal yàlla la waaye baat bu yëkkate gu ba ñëpp di ko dégg nag ci lay waxee mu ngi naan la amruka ma toonil magaani wala alxina ida sakana almusrif tara wa sawa bihi fa jub fi maradillahi bilmaali radiyan bima taxtani min ajrihi wa sawa bihi ba mu àgg rek ñaari ko yu ne dafa am jinaas la amruka sa dund mooy sama ngiñ maa toonil du jëriñ dara mooy man dafay mbugal almaxaani ay wàccuwaay ay kër yu gudd ak yu rafet hmm. walal xinaa du càggeen koom wala xalal biñ dajale ci àddina hmm. loolu man mbugal man da jëriñ dara hmm. isaa sakkana bu dëkkee almusri aji xoomal asara suuf wa sawarte mu sax bi ci suuf ka ko dajale woon wala ka ko tabaxoon kon lu ko amal fii maradillahi ci ngërëmi yàlla yi bil mali ci alal kon boo amee alal na nga am duñu tey da ko def ci li yàlla gërëm ah buñ ne bokk gi laaj na ah nga def ba mu rafet buñ ne diina ji laaj na nga def ba mu rafet buñ ne àq njaboot gi la nga def ba mu rafet yépp nga jublu ji jaamu yàlla radiyan ngërëm nga daa ji gërëm bi maa ci li nga xam ne tax nii da ko kotti min ajrihi ci fayal sama borom wa sawaabi ak yoolam ndax li yool mu lay indil ëllëg moo lay ëpp jëriñ moo lay amal jëriñ teelaa jëriñ ëllëg wa baatil na ngay jëkkalante bii ci xaalal jooju soppa samaani soppat ak jamono te it nga xam bu baax ne àddina kër gu taxawadi la xam saxu fi ñàkk saxu fi jëkk saxu fi jagadi saxu fi su boobaa nag su niroo ne man dara xam na da ngay góorgóorlu ci li ñu sant ku man dara su man saxee def lu baax sax suñ demee ba kanam te dikk fekk jëriñu lañ ca man loolu lañ def àddina du kër bu taxaw waaw loo xam ne bu man dikkee dafa fee ne bu mën a dikkee dafa fee ne mun noonu dégg <coughs> wa baadir na ngay jëkkalante bii ci loolu sarfa samaani fa inna woo nag moom yëgoolu dana mu yongaane mooy dana halage bi mexlabihi ci wexam alas xaaburaji jàngal mooy yooyu dafa def ñaar bu la xure ñaari xure lay do wana bi ak bañam jamono day hokke day mat mooy xanam bu ne da koo dikke nit ci xeeti mbett yi wala ta mante bul hóolu addahra jamono alxa oona bay wuru jàkkoon wa mag ak pexeem te itam nga bañ ni naagu ci jamono fa kam xaamilin bëri naa ji fay mooy ku kenn xamut ax naa kook jamono xalag na ale yi ci moom wanaa biin ak aji siiw ndax ñëpp lay fàtte koo xam dara koo xam daraja ak koo amul daraja wanaa bii ak bu ñu wanaa biin ak aji siiw waxaan si te na ngay mooy hawan nafsi bànneexu bakkan alladi bànneexu bakkan mi nga xam ne ma attan woo mosu ko topp aw dalatin borom ak réer illaa hawa dare boog daanu na min iqaabihi tukkee ci ay xaqabaam ay montagne am te nag ngay wattandeku bànneexu bakkan ndax ku réeree wóoradi wóoradim ba topp ko it ci xaala ko rek la ko jëmale wala tattabii al hawa fa yudillaka an sabilillah inna alladina yadilluuna an sabilillah lahum adabun shadid bàyyee ba waxaate na ngay mooy hawal nafsi bànneexu bakkan alladi bànneexu bakkan mi nga xam ne maa taxawoo topp ko axoo dalatin borom ak réer illa hawa ndare boog daanu na mu mi ne xaabiyi tukkee ci ay xabaam waxaafis na ngay wattu na ngay sàmmuhanteet ala taqwal ilah ci ragal yàlla wa xawfihi ak ragalam na nga sax ci ragal yàlla li tan juba ngir na nga mucci même maa ci li nga xam ne yuttaqa dem na ko teet mi ne xam yi ci mbugalam nga fa ci ragal yàlla ndax nga mën a mucc ci li ngay ragal bal de jëllale xantal kaare sam bi ko walit fàttale ko sa bàkkaar wab ki yi da ko jooy say bàkkaar de ko fàttale ko de ko jooy fàttale ko goo xam ne dana layen ci jajj ci lu ni mel ci la dalati fàttale ko goo xam ne dana layen ci góorgóorlu ci lu koy defal na jooy bi damen ci woo xam ne yu daahi dana mu niru al musnaniir xaala masaabihi ci jamonoy sottim allahu yaalamu ma ismun hamamtu bihi illa wa naxasahu xawfi min annaari yàlla xam na ne su ma hittihoo loo bon rek bu su ma xel dajee mbugalam safara rek danaa mujj am cag ragal ba dellu gannaaw gis nga ku baax a wa masil na ngay misaalal li ay nay ka ñaasa ñaari bët alximaama dee wa waxaawoo ak dalag dee waramata malxaaw ak tiitaa ngay dee wa matama saabi ak mosuwaay saabam saab mooy nangu weex la te nit ki dafa war da xel dee ak tiitaa ak wegug dee ak wextanu dee waan na xusaara mansilil hayyi ak naka dayo wàccu wayu aji dundu xubratun ngas la mu xam ne sayan siluha xel dina koy wàcci mustansalan de ku ñu wàccee min xibaab yi ay bergendam ay xubbaam ay tabaxam yoo gudd te koo fi gis muy dund ak fu mu dëkk lu mu bis dana ñëw ñu wàccee ko fa dal de gas dugal ko ci na xusaara mansilil xay yi ak naka dayo wàccu wayu aji dundu xobratun am ngas la mooy am pax la mu xam ne sayen siloha xas na koy wàcce moom mustasalan de ku ñu min xibaab ci bergel fa waaxan dana ma héemu li abdin ñi xalab jaam boo xam ne saahoo naqadina ko fi alihi ñaaw ak jëfam waab daa te mu feeñal atalafiya dabatal qabla ixlaaqi baabi yi ci njëkk moo tax ki am sens mooy ki teel a yëg ay ñaaw ñaawam gaaw a dabatal bala réccu de wéyi demut ba àgg ci xar xara xam ne bakkan a ngeerot mu door a nekk de tuub fahum tubdu baniati walaysati tawbatu lilladina yaamaluna sayiati xata ida hadara ahadahum almawtu qaala inni tubtu l aan <laughs> waaye fi àgg guñ foofa rek ah tuubu kaay la rek dégg nga qaala Haaris nee na fa dalla dal hendu alqawmu nit ñi bayna abratin ci diggante rongañ yadruunahaa yooyu danañu ko tuur wa tawbatin ak tuub yuxironahaa yooyu danañu ko feeñal mu ne fa tabarakallahu wax ci yàlla def ci barke xol yëpp yëg ko ñëpp ngi wane tuub ñëpp ngi jooy itam xataa kaadat ba jeng asam su jant bi te soo atakaar ba jege asam su jant bi te soo lu de jeng ñoo moom ba nga xam ne sawaal jotti na wal faridatu jege masala mi taxoon lu de xewal xam ne bëccëg bi léegi ñu romb digg bëccëg daal kooku na xam nga xendal dafay jot falamma xasaat ba dalee nag alas waatu baadi walta ama te dajee alin saatu foofu nag bu ñëpp defee taraf wastakan na nëbbu al abaraat rongañ yi mooy ñu doon jooy noppi nañ wane baraatu ak wax yi ñu doon wax itam kenn waxul ñu ne taraf daal bi loola amee istasraxa xett leku naa muttafiqun aji xett leku bil amiri ci buur alxadri bu daa aji teew booba ndawal buur li fi nekk laham ku fi indi kalaame ci moom wan ko ne koom dañ tooñ wa jaala mu xaraf moom aji xettaleku ji yaj aru di yooxu ilayhi jëm ci alham al amiru alxaadir min amir bi aljaayiri bu daa jeng fekk la ko def mooy nit ak service këm dëkk moo ko doole tooñ ko mu ñëw kalaamete ko ci kilifa gi nga xam ne moo fare ko kookale xelit ko wal amiru buur bi na saaxin aji aji xerewlu la ilaa xasmi yi jëm ci aji xulowam waaye buur bi nag mel ni daal kim fi teg daal la faral koo la nangoo déglu laahin aji jëllale la an kasfi zulmihi wali suñuy tooñam mel ni daal boo kal dimbale falamma yi isa ba mu naagoo min raw yi ci yërmande buur bi itan haata buur loona alwaaxe da aji waade ji li nu sëyi ngir la yee biiram ba mu xamee ne buur bi du ko dimbale la waade kat bi ne ko a layal buur buur bi fan na mu buur moom waade kat bi na data simmiir buur aji wegu aji wagu waan sada mu sadd mu harritan te aji gaaru daa di rex rexal bil amiri buur waaw ne ak wagu moom ndawal buur bi tooñ na ko mu dem ci kilifa gi nga xam ne moo ko sampu tawatal ko ko waa ji bëgg koo def yëfi suma nit lay faral mm. ah mu xam ne daal buy fii rek du sotti mu wax waadekat bi ne ko àddina nag naka jekk xam-xam ak xalal ñoo koy doxal buur yi ñoo xamee man mënu xalal waaye borom xam-xam yére nag kii de nag ñooy dimbalanteeg ñoom mu ne ko gaaw ji balaa xalaku ci nguur gi waadekat bi jóg nag commencé gaaro xaale buur waaye tuddut kenn mu ne ajaban dana ma xéemu xéemu li rajin ñaal aji yaakaar ay yanaala ba Muhammad wilaayatan fal man de de waxtaan ak nit fa bëgg ngeen jiital ma daa hmm. leen defal lii daa leen defal lii daa leen defal lii da hmm. def loolu xataa hmm. isaa naa la ba mu xamee bex ya tawoo càkkutéefam mu def ba nit ñi jox ko la mu bëggoon nit ñi joxee ko ko ndég liggéeyloo ko ndég liggéeyloo ko bi loolu xamee baxaa mu fee moom mu desoon te loolu bu baax a baax nit ñi faruñ kenn ndég yéen la tidaa nga juñ yéene wu seen bopp de loolu amul de ku ñuy fal nag dañu yaakaaree njëriñ ji fal la rek waaw waaye faluñ kenn nag ndeg mm. yéen la teraanga yoo xam ne ñoom yéene wuñ ko seen bopp mm. déedéet faluñ kenn ndeg boppam mm. seen bopp sax ñuy fal nit waaw ajaban dana ma yéemu ba mu amaat wilaayatan fal ak falte xata isamaanaa la ba mu amee boo yettoo jàkku téebam baxaa mu beew yufti dana mu fallay wayul mu te garay fil mazalimi ci tooñaange yi nekk di tëdd jàq jàmbur yi déglu luubal rek waale xam di aji root ci wir di a ci dogam léeg-léeg mu tooñ tooñi boppam jël alali jàmbur ci noteel wa mooli xam te di aji root le tawran ci beneen jamono léeg kum samp def mu dëgëral ko ja jus di dana mu fallay wayu li mu dana na garay fil madalimi ci tooñaange waale xam biroom root mu daaji tabbi fii wir di a ci dogam tooñaange tawran ci jamono wa moole xam te daa ji rootle tawran ci jamono maa i yubaali faale wut xiina waxtu waa dana mu topp alhawa ba neexu bakkan fiiha ci palte googu aslaa ndax xéwénal na diina woo diinaam ama taxa wala yàq pour nii lay jagee wala du jagee yoonam ne wuji moom daal nii yoo ko neex waaw maa i yubaali faale wut xiina waxtu waa mu topp alawa ba neexu fii haa ci wilaaye googu aat laa ndax xéwénal na diina woo diinaam am aw taxa wala yàq na yaa way hawoo xoonaa yërmandeem ay gonen dama ko yërëm sax ci danse bi nga xam ne ci la dugg law kaana bu nekkoon moom waa jooju yooqinu de wóolu ne an na naka luy mbir maa xaalatun déet menn mbir illa te wóolu ndara dana jàllarbeku lama saxaadu beew de seetlu bu baax a baax ku mu wóor ne nguur bu doon ci yow du nguur bu doon sax doo mos a falu ci ay loxo waaw nguur bu doon sax doo mos a falu ci ay loxo seetlu bu baax waaye lim du sax nag ca la loxo ya nga xam ne ca la njëkkoon baax si ci yow ba yàgg-yàgg mu jógee ci sa loxo dem ci leneen loolu ku xam ne bana ko xel faale ko ci jëfinam du ko xamee tooñ nit ñi de waaw bu doon sax daal si ji moom xam nga dëgg waaw law kaana bu nekkoon yooxinu de wóolu su defoon definu ko gëm ne am na woon nag luy mbir maa xaalatun déet mel ni mbir te wóolu illa te wóolu nar na jàll nga ko xamul lenn loo gis lu mooy day jàll nga ko boobu bu wóolu woon la ma taxaw comme du beew te lu baax a baax aw law tabayyana walla woo mu birlu woon maa ana lan na daamatu man mooy réccu koo xam ne saxaa jéngal na mu samaan dégg ilaa ifkil wusaati jëm ci feni rambaajkat yi lamaa saxaa kon du jéngal déggam jëm ci ñow walla mu settantaloon ñaare ñi dul wax dëgg ku leen a déggal nañ ko yàqalee ba ëllëg mu réccu lam leen déggaloon kon du leen déggal tey de naam naam inna man nammaamu suu dararin mooy rambaaj baaxut lakin namal kasibul jaani asadu darar waaye lépp ko tane fenkat lakin namal kasibul jaani asadu darar waaw ñëpp ko tane fenkat wala xelam demoon ci ñiy déggal fenkat yi ni leen fenkat yi da yàqalee bu ëllëgee ñu am naqar yuñ mën da wax kenn mm-hmm. su xelam demoon ci loolu mm-hmm. kon du doon sankat mm-hmm. aw law tabayana wala mu birlu maa ana na daa ma tuman mooy rëcci koo xam ne saxaa jëngal na mu samaan dégg ilaa yu kin wusaati jëm ci feni rabaaj yi kon lama saxaa du jëngal déggam de waaye fan xat homatul yow li man ñaar koo xam ne adha mujj na wala yoor yoorlu na asimaamu sanof ka bi ka bii ci teqam simaamu ka al bi dafa wutu tamit waaye daal yow daal ki yàlla jox ko kilifteef nangul mu xirim la rek waaw ki yàlla jox kilifteef ci yow nangul mu xirim la rek fan xam na ngay xomatul rek li ma ñaar koo xam ne asaa yoor yoorlu na mooy mujj na asimaamu nos ka bi ka bii ci teqam laa tansi am na yadan hantaye bi sawkatin ah bu duñ ko bi tëdd kenn ko waa baax gis nga ko baax wataxaata na ngay du moyu in alxaa bu sànnee arihayata caawo gi aw laxaa wala mu ko su fekkee yam la war a taxaw mu jaa sàgganee yow da ngay nangu ne yàlla ko jox kilifteef bi kem lam la xëppee doole lam lay métital ah nga ne ko muñ rek war na ngay sàmm al muraar muraar muraar gàncax gu weex la su ko gileem lekkee day booy ay tuñam isaataxaa ko bu la xooyee li yi ci ci sàmmum su la sàmmuloo xee muraar sàmm ko rek mooy su loo tiis tegoo ko rek wari te na nga root alu jaaja ndox mu naqadi isaa maaka bu la tere asa yëfa ndox mu neex waaw bu leen sësale ci yenn mbir yi da nga xam dul communicateur ne ko rek nga nangu leen doole wax mil na nga xenu adawu loram wala waa ma dakka doonte méttal na la masuwa laala waasaala te mu yolal xar ba dafee mbuusam rongañ min ka ci yow waaw raxate mu sotti lu mu def lu métti métti donte jooyloo na la hmm. mu ñëw rek baadolo man la man la hmm. defante buur waa mil na ngay yenu adaawu loram hmm. wala waa maddaka donte métti tal na la masuwoo laala buur moom buur la rek yàlla oyofalul mbiram waaw ah, mooy tax yenn yi moom jarul di leen di boole <laughs> da ngay nangu li ñu doon rek <laughs> da ngay nangu li ñu doon ah. da ngay nangu baax a baax dajale nit ñi ba ñëw nga nekk gouvernement bi naan gouvernement bi nangam yooyu yooyu ku ñor du ko ku kuy ku ñor du ko def. loolu fajul benn soxla. ku ñor du ko def. waaw. waasaale te mu yolal xar ba tamit ka jee waaf te mu sotti yu di ka dana la reero reeloo. addeeru jamono. Mm. isaan na baabu becci ngalee. xan wu ci moom mu taal naaral waxaa safaraaw xare li kay di yi ngir pexe li ko taxa man li muy tëbantoo nii du luy sax dee ànd ak moom ndax luy sax dee ànd ak kenn ker bu tàggoog moom nag loola jiya gàfag tëbantu ga des fa sa xol dana sedd ci moom waaw ndax kii malikul muloo moo koy duma fara yu di kanka dana la reeloo ak dawru jamono minu ji moom isaan na baabu becci ngalee anu ji wa sabba te mu taal moom jamono naaral waxaa sabaraw li kay di ngir pexe wala yéen silan na te dana wàcci bi hii joom asamaatu ndokku isaa bada bu feeñee mutaxalliyan daaji féex min soxli ci soxlaam mutafarriqan daaji féex kenn boo xamee ne amee du benn benn ko ci dara boole duñ ko ci dara waa sa xol dana sett ci te nu baax la xataloo da nga ko de <laughs> lu la xataloo da nga ko de wala yéen si lan na te dana ndaw dana wàcci bii jam asamaatu ndokku isa bada bu feeñee mu taxal yan min soxli ci soxla ndax amee du benn ndaw mu tafarixan daa ji féex kenn dégloo ko ci dara xareetuñu ko dara wala tarwiyan na te da nga la woo ñaal ko isa ma xadduhoo bu mujjee lexam nga firi xaale adha mu marraxan da lu ñu bëlame da lu ñu bëlam xanaa turbil hawaali ci suuf si te ker buñ koy daaneel keroog da nga ko de waaw kon nguur moom ne yéegi neexee wala tarwiyan na te danga yëram la woo ñaar ko isaama xaddoo bu mujjee lexam nga firi ale adha mu ma raxante lu ñu bëlam ala tubilawal ci suuf dawaat xasa li yëpp la woom la ñaar li yëpp gafi tooñ la ci àddina bi wala saw ba yuuqabu te xesi na koo taxawareer mawqifan taxawaay boo xam ne fii ci moom yuraa la defi gis rabbul fasaati borom fasaha alsaxa mu daa ji tëq wala mu daa ji dotox hmm. te dañ ko taxawal ëllëg ci kanam yàlla fu hmm. ne mën a wax ak hmm. du tax man faa yey dëgg rek mooy tax man faa yey wala sababu yoo xamu xëy na koo taxawalee moo ko fan taxawaay bu ne fii ci am yu daal dafi gis rabbul fasaati borom fasaa alsaxa mu daa ji wala yu saran na si dem na ko pang adal la mu gën a min faqen falaaj ci mbirum tawkat benn gàncax la bu xam ne kenn du koy soxla ci pegg néeg yi lay sax nawet mu ne bi pécce mooy gën a ñàkk dara ci ñëpp wa yu xaasaban na te def na ko xisaab ala naqiisati ci wàñña wasaxaa ak jàngar wala dolli te itam na layoo bu métti métti ci ni mu xamee woon njaboot ak yàlla léegi nag boo demee ba amee mbiri bindee bi de xatte de saxal ak dindi da nga war a sàmmante gu la sama borom xen loo rek fa mu nga xàgg fa dimbale dëgg waroo fa ñàkk a xàgg ndax it bi xëppoo ko yërmande ci bindee ko bi gën ma koo xam li jagal société bi kon jëfandikoo masla bay ne na la xaq yàlla ci jaam loolu war la koo bu ëllëgee borom bi bu la taxawale ne la sama àq sàngam te àq sàngam lu taxaw sottaloo ko lay wax te lu bu baax ba te itam moom kooku dee àtte ci jaam yi foofu la war de xem war de indi lu gën a diis lu xam ne lu gën a diis ko sant <coughs> technique àtte bu gën a diis lu ko sëriñ bi sa teg loolu kenn waru koo def ndax it nag borom bi kenn gënu koo xam ñaaw ak tooñ kenn gënu koo xam màggam gi kon li mu wax ne doy na ci jaam bi ma def li yow loo ko romb seen wax borom bi kenn gënu koo xam ñàkkam tam kenn gënu koo xam moom màggam gi seen wax ba kon li mu wax ne jaam bi ma tooñ lii def ko li yow loo romb loolu ah loolu lu ñoo lijjanti rek ah diw sàngam reyoon ko ku la ko rey la woon te defutoon lu jot diw sàngam tëjoon ko defutoon lu jot ku la ko tëj la woon kenn duñu lijjanti moo tax lu doy waar wuy na te na ko jàppee bi may tanaaj ci li mu tooñ yëpp mooy deret yi mu tuur ci caaxaan xalal jëm jël ci caaxaan mm. wamani tanaa ak ñim kotti mm. ak ñim jota lor yëpp mm. wuyu taala ban na def na ko sàkku bi ma tasaa ci li mu góox mooy lëm góox caay-caay yi wama ak li nga xam ne yëpp taxaw na ko mooy njubadi yee ca biti lu ci tegu wayu naa xason na def na ko lu ñutu xanaa sa xaay xëcc ci sew sew yi ma kaana ni ki misla ma xat kaana ni mu nekke woon yar na woon di def bil wara ci bindee bi enquête yu métti yi mu doon def di dañ ko ko defal de bal li fi nekk ab laxa lu gën a jot day wax sax lañu ko def xataa yaa am da ba dana mujj màtt këpp woo ténxam xale wilaayati ci fal ba fal gii mu bëggoon ñu jox ko muy ko tëbantoo bu ëllëgee na xatam lay ra wa yawaddu dana ngéeju loolam yàq bu sàkku wooloon minaa ci wilaaya gi maa baxaa la mu sàkku kon ñi jàng loolu qaala topp mu ne ayyuhal mutawassir yow aji gañaa yow mooy aji takkaa bil wilaayati ci fal yow mi ràngoo fal al mutarassir ku ne jiitu li riayati ci sàmm yow mi hen sa bopp hen ni sàmm mbiri bindee bi alit laa la reyloo bi daw la sikka ci sa nguur hmm. sa nguur gi bu ko def muy luy reyloo hmm. wal ixtiraara ak naxoo bi saw la sikka ci sa cong hmm. ak doole ji am foo joxoñ mu dagg loolu itam bu ci naxoo na nga bàyyi alit laa la reyloo bi daw la sikka ci sa nguur wal ixtiraara ak naxoo bi saw la sikka ci sa cong fa inna dawlata naka nguur riihun ngelaw la xullabun lay jàllarbe ko haa koon nguur comme ngelaw la lu xam ne taxawut dafa xenu ci yow benn yoon mu xenu ci feneen rek wal imrata nguur barqun melax la xullabun gay buruja koon ñaan yow amir nga loolu itam amul solo wa inna asaada ruwaati naka ki gën a texe ci way sàmm yi mm. mooy ñee tuddee buur ki ci ëpp saada mm. man mooy ko xam ne saada texee na bii ci moom mm. ran yetuwoo caw mooy ña mooy sàmm buur bi gën a jig ñim buure moom la nguur gën a jig waaw nga xam ne yow jig nga ñi nga buure yow la nguur jig waaw euh, buur bu jigul ñim buure rek nguur jibu ko mm. ndax du mujjee moom ci jàmm moo tax mm. waaye naa xandal roxaate naka ki gën a texe ci way sàmm yi te mooy buur bi mm. man mooy ku xam ne sànni da texee na bii ci moom raay yëtoo caawam waas ki ci gën a texe at fi daaray ne ci ñaari kër yi man mooy ko xam ne saa at ñaaw na raay yëtoo ki ci gën a ñàkk sens gën ci xalaku ci àddinaam ak ci àllaaxiraam mm. mooy kisaab meen lu bon mm. ndax du am jàmme àddina mm. te àllaaxiraam yàq ko ci tooñ bi léegi <coughs> falaata ku bul nekk mi man de bokk ci ñi nga xam ne yadaru danañu wàcci danañu bàyyi àllaaxira ta àllaaxira wayul te ñii ko wàcc wayu xibbu ñuy sopp alhajila tahaddina wa yabtaxiha te ñuy ko sax bal doon nit koo xam ne bëgg àddina mooy fees dell ci sa xol bi xen la ci sàggane àllaaxira suubaa du baax de kallaa bal tuhibbuuna alhajilata wa tadaruuna alaaxirata sa law xitaab boobale ñàkk a bokk jëm moo gën a wóor bokk ca de kallaa bal tuhibbuuna alhajilata wa tadaruuna al axirata mm. xitaab boobale waxi sama borom joojale mm. nga bañ a bokk ci ñañ ko mm. te mooy bañ a jël melo yooya moo gën a wóor falaata ku bul nekk man de ku xam ne yadaru dana mu bàyyi alaxirata alaxira wa yulxiha te muy ko sànni wa yuhibbu muy sopp alhajilata addina wa yabtaxiha muy ko sàkku wa muy tooñ arraayata li muy sàmm mooy cawo gi wa muy ko lor wa isa tawalla bu dëddee mooy bu joxee gannaaw saa muy dox fil ardi ci suuf si liif si na mu yàq fi ci suuf bul nangoo doon kooku fa wallahi giñ naa ci yàlla maa yaxulu du sàggan ad borom bi dayyaan ci turi yàlla yi ñu ne li mooy firi mooy almalikul qahaar ma yaxbulu du sàggan addayaanu borom bi wala tuhumalu te déefu la neenal yaa insaanu yow nit ki du ne yow dañ laa bind rek bind gi hundu dara danga fay nekk nekk ci lu la neex rek boo dee mu jeex mooy du lool de mooy du lool de wala tulxaa deefu sànni hmm. al isaatu ñaawal hmm. wala ixsaan du jàggen rafetal hmm. lu bon bu ko nit defee su ko sama borom bëgg a topp ak moom mu ne jël luxus dara lu baax bu ko defalee tawfiq ba mu def ko sama borom dana ko ko fay du ci manquil dara bal fi nekk te yow dama xeesu naa tegeef la kañaal al misaanu peese ëllëg dañ lay peeseel say xasanaat ak say say sayi aat mm. wa kamata diin te ni nga mm. tu daan la defi la mm. wa kamata diin te ni nga tu daan la defi la fayee waa ji bi ci teg qaala haris nee fa wajama dal wedem mooy noppi xamul lu muy wax waali ji li maa ngir li nga xam ne samiat dégg na ko mm. xam naa waa lii dinañ lii dugg ci mm. lu xam ne xolam yëg na ko jëmmam yëg na ko lool mm. wam tuqi a soppeef law nu hoo meloom wam tuqi a soppeef baatinam boo xoolee jëmm ji da nga xam ne am na lu mu yëg lu xam ne xol ko yëg jëmm ji dool yëg wa mu xaraf moom waali yetta ab foofu de méttilu hmm. minal imrati ci nguur hmm. wala ji doo waxi waxi méttilu hmm. ci yëfi nguur daal nim danse wa mu xarab yetta ab foofu de méttilu mooy di wax ufun ufun mooy di di ñaawul daal minal imrati ci nguur wa yor defu te muy togg ak safrata fokkat bi safrati ci fokkat léeg-léeg dana bi fokkat summa amada topp mu jublu mm-hmm. ila saaki jëm ci aji tawat ji mm-hmm. fa askaahu mu dindil ko tawatam mm-hmm. booba la fekk ki doon kalaame nag wax ma histoire bi nam demee waa ji wax ko ko mu xam ne moom lañ tooñ mu fajal ko lañ ko tooñee saafara ko li ko fi lu doon yooxu ba ñëw wa mu dellu tel masku wi jëm ca tawat min hu ci moom paas hmm. mu jàqloo ko hmm. ka nga xam ne moom lañ sampoon ci barab te muy tooñ hmm. mu yar ko ni nga xam ne noonu lañ war a yaree gu jubadi wala waa mu jublu el masku bi jëm ci kañoo tawat min hu ci moom paas mu jàqloo ko waal safo mu teral alwaxeda aji waade ji wahabaahu mu may ko ba mu ko defee mu defal teraanga ki doon waade dindi alalam itam jox ko hmm. wastanaa mu sakku minhu ci waali ci waadekat bi hmm. ay yaxsaahu ba mu dikkalat ko hmm. mu wax waadekat bi ne ko dëgg-dëgg daal boo fi doon man de feeg léeg-léeg dafi wax wax yi deme nii kon it danañu neex ndax naka jekk nguur xam-xam ak xam-xam ñoo koy doxal suba buñ la defee ca bopp ba ni nga xamee doole yi xalal ni nga xamee soxla ci xalal hmm. nun nga war a xamee soxla ci xam-xam bu lay giide hmm. waaye xalal ji bu dikkee baat bi ne fi hmm. te xam-xam buy jubbanti newu fii itam déggaluñ ko xalal ko rek lay indi moo tax ñu ni yow ah baax nañ ci ñun te nag wax dëgg ngeen seeti ñu moo gën a yomb fan xalaba dal di jàllarbeku anhu walis amirul eh, al amirul hadir mm. al mazlumu ka ñu tooñ mansuran de ku ñu mm. kiñ tooñoon muy yooxu mm. ñi fajal ko li ko toxoon di yooxu wa zalimu mujj aji tooñ ji mahsuran de ku ñu tëj ki moo tooñoon ñi gàccal ko mu xam ne def lu jagadi baaxul wa barasa dal di génn alwaxidu aji waade yatahaada mbirum dana bëngeer mooy dana daagu bayna rufqatihi ci diggante settim waya tabaaha te dana damoo bi faw si safqatihi ci texeeg tàccug njaayam mu daal di génn ak gaa dar kontaan torop ci liggéeyu tara tayam bi ni mu amee na jaa loolu lañ faw safaqa mooy njaay gu am bénéfice liggéeyu tay bi ni amee na jaa waa barasa génn alwaaxidu aji waade ji mm. yettahaada mbiroom dana bangeer mm. bayna ruqati ci diggante settim mooy ay àndandooram mm. wa yettabaaha te dana damoo bi fawzi safqatihi ci texeeg tàccug njaayam wa taqabtuhu ma topp ko al intiqaab mooy da ngay topp nit di xor tànkam fu mu teg tànkam fa tànkam axto mbirum dana jeegowu mutaxasiran mm. de aji yéex de aji gàttal jeego mm. mu ne dama topp ci kawam topp di xool fi tànk bi jaar mm. ma jaar fa di yéexal sama dox lool itam wa urihi may ko wan lam xan ko basiran bu daa ji gis da def mandarga yoo xam ne xëy na dana ci xamee man xamee na ñu la sori sori wu ma ko hmm. fala masta safa ba mu settantalee moom waadi moom waadi hmm. e li nga xam ne ux fii danaa ko nëbbu hmm. wa fatana wappatina te mu xam li taqallubi tarfi jàllat beku sama gis fii ci moom ba mu xamee li ci sama xel mi xam ne gis naa ko moom bi xaal wax na dafa wax ne xayru dalilayka man arsat xayru dalilayka ki gën ci sa ñaari tegtal yi man mooy koo xam ne arsada gindi na la ñoo bëri ba ñuy wax ak yow ku ne naan fii la ak faala kii naan defeel nii ak defeel nale xamal ne kalawan lay dëgg ga rek mu nga war a déglu da kum do naa la ne maa rek suma taraba topp mu jegeñ mi nii ci man waan sada mu sadd mm. boobu la ma jege mu sadd wayi mm. ana alladi taarifuhu yaa harisu xibsu mm. molokin fakihun munafisu utribu maa la tutribul masalisu tawran axu jiddin wa tawran aabisu maa xayarat nii baadakal hawadisu walantaha wadiya xatabun kaarisu hmm. wala fara haddiya naabun farisu hmm. bal mixlabi bi kulli saydin dabisu hmm. kullu sarhin fihi bi haisu ka hatta ka anni lil anami warisu saamuhum wa wahamuhum wa yabisu mu ne ana man alladi may ki nga xam ne taarifu danga ko xam yaa xaarisu ki ma teg laa rek de xit sumuloo kin kii waxtaanal buur yi kii wax buur yi dëgg fa ki woon kuraaji mbóorante xam ne xam dëgg teewu koo mën a maslaa man waxi mbóorante munafisun kuraaji waxante mm-hmm. utribu dana bégloo dana siigareloo mm-hmm. maa loo xam ne la tutribu du ko de bégloo hee mm-hmm. almasalisu ay musallas léeg ma kontaan loo nit kontaan loo hin woo xam ne musallas mënu ko musallas xeetu tëggukaay la ak na mooy baatalee boo demee ci Miftahul Ulum muy téere Xawaarismi yi bu muy jàngale ara alaatu talabi alaatu tarabi mooy jumtukaay yi ñoo bégalee nit dana fa tudd yu bari benn bu ne dana la bindal na mooy baatalee waaw boo musallas bi mu fa waaw mos naa ko ci gis dégg nga gisoon naa ko ca waaw mi Miftahul Ulum téréb téréb xawaris mii la mm. fànn ci la laal mm. tawran ci jamono taxut mu rëy bu weesu àpp waaye fànn yëpp ci la laal mm. bokk na ci téere yi nga xam ne dale naa ci bopp bi da ko yër ba ci cat la waaye boo demee ci musalas da nga ci fekk loolu da nga ci alatu tarabi da nga ci fekk loolu tawran ci jamono axoo jiddin borom dëkk la eh, wa tawran ci beneen jamono habisun aji fola rek maa xayarat nii soppihuma alxawadisu xew-xew yi baadaka ci sa gannaaw walal taxaa xanciwut fulliwut xoodiya sama bant xat bun mbambare mooy mbir mu diis kaari sun mu daaji tat wala fara daggut xaddiya sama ñawka naabun bañ faari sun bu daaji xar abu seydin ma nga xamoon daal moom nga fi gis tey lépp loo ko xamee woon rek mm. dara wàññeeku wuti mm. dara jotu ko mm. walal taxa fulli wut mooy xànci wut moo di sama banta xat bun bambare mbir mu diis kaari sun wala fara daggul haddiya sama ñëw ka bun bañ faari sun bu daaji xar ba bi sama we daa aji sampula bi kulli saydin ci bépp li xam mooy daal ka nga xamoon heure daal pexeem daal nu mu mbiram nun la te lu ko baax a baax wa kullu sarhin bépp gédd si sama till xaayi sun aji yàqala fii ci nga xam ne man nit la koo xam ne heure bu mu ngi daw di toppatoo mbiri boppam man li ma gëm mooy nit tar gu war na fexe di am dara mm. wala muy xam dara mm. amma bis ñëw ba jeex mm. yow wutaloo sa bopp loo xam dara ci xam kon bis boobu lum la jëriñ jëriñul la tus ida marra bi yawmun walam attaxid yadan walam astafid ilman fama daka min omri ne bi boobu daanaka dama boo xam ne xaw ma ca dara xaw ma ca dara mu bi boobu dama caa dee dunduma ca te mm. lu baax a baax xataa kaan nii ba daanaka mm. aji donn laa lil anaami ñaan bindéef yi mm. dafa mel daal ñëpp laa bokkal rek saamuhum seen sàmma mooy mooy ci arab yi wa xaamuhum ak seen xaam mooy nit ñu ñuul ñi ah, wa ah, dégg nga wa baaxesun wa yaafisun ak yaafis yonent yàlla noo ala nabiyina wa alayhi salaatu wa salaam nit ñi tey ci njabootam lañ bokk gaalam nga ñetti doomam ñi duggoon muy saam ak haam ak yaafis daanaka ci la nit ñëpp cosaanoo waaye ñu leen jiitu woon moom daanaka ñu raafe woon ca ndox ma la ñu ne abul harabi xaam mooy abu turki mm. abu sudan mm. yaafis mooy abu turki mm. sam mooy maami arab yi ci la arab yi cosaanoo xaam ci la nit ñuul ñi cosaanoo yaafis ci la turki cosaanoo qaala al haaris ibnu hammaam xarit ne fa qultu ma wax la oo ma ne ko tallaahi giñ naa ci yàlla ne innaka naka yow la abu zaydin mu ne ko lii kenn laa ko xamee ci àddina si muy abu zaydin xam naa ne moom nga wala xat xumta taxaw wallahi taxaw lillahi ñaal yàlla wala omra bna obaydin te du càggeen taxawaay amru bna obaydin mu ne ko ah Amru ibn Ubaydin de bisam ba sàlla bis bu ràññee ko ci bis la waaye sa bisu tey bii moo ko raw Amru ibn Ubaydin dafa mos a dem ci barabu Mansour Mansour muy buur bi sancoon Baghdad mooy maami Haruna Rashid waa doon ko waa ñoro ñoro ñor ba Mansour jooyante jooyu métti métti Amru ibn Ubaydin soo bi yu la woon waaye lenn moo yàqoon biram wàllu aqida mutazili yu la woon dafa doonoon nitu sunna loolu mooy li ko yàqal dëgg-dëgg xasanul mm. bisri yi mm. daan eh, bu ko mm. wax ne kii su duggut ci bidaa comme jamono antel moo lay gën tànn ko ñoom tànn mu ne faasa mu karim bégam aji tedd isa umma bu jubloo see mu kontaan comme kërim bu xam gan waqaala mu ne ma isma déggal nag yam na umma yow sama doomi ndey xaalal nag ma waxal la waxtaanu doomi ndey ak morom ma su ma saa topp mu xaraf yaqul mu wax ne alayka bi sidqi walaw annahu ahraqaka sidqu bi naaril waayet mm. wa bi ridallahi fa axbal wara mm. man asxatal mawla wa ahdal abid mm. alayka maa ngi lay dénk bisit ki dëggal ak lu mën xew waxal li nga xam ne mooy dëgg rek mm. walaw ànd woo doonte naka luy mbir mm. axraqaka la kenn la asiduqu dëggal bi naaril waxeet ci safaraw tëkku ak luñ la ca tëkku tëkku dëgg daal nangul di ko wax rek ndax yan faŋooka min haytu tazunnu annahu yadurruka bari na foofu foog ne la fay wàññi dara fekk moo la fay amal njëriñ loolu <laughs> moo ko ragal boo xam ne moo la fay xett ni waaw xëy na ngay sàkku ridallahi ngërëmal yàlla te itam ngay wut ngërëmal yàlla donte bindee bi dañ lay mere ñëpp bu ne cam te yàlla ne est-ce que itam dana baax waaye yàlla bu xasee ba ne cam rek est-ce que keneen amatul njëriñ mm. gannaaw noonu la defee na noonu la demee nag e faa mm. bal waraa ki gën dof ci mm. nit ñi ñëpp daal ki ci gën dof e man mooy ki nga xam ne asxasa sànjuloo na mu almawla borom bi wa arda muy gërëm loo alhabida jaam ñi talafridal maxluqiina bi suxtil xaaliqi loolu ku gën dof moo koy def ndax maxluqoona yi ay kawam lañ mëna luñ ko dara alxaaliqu mooy léppam mu yàq digganteem ak ki ko manal lu ne mm. rek bëgg lu ne ak ki nga xam mm. ko dara mm. bu ko nangu waaye dégg su ma innahoo topp moom waddaa tàggu na mu axdaanu ay xaritam wan talaqa mu booy yasab mbirom dana mu diri axdaanu ay lafiti bu bam booba la tàggoo ne kon baax na maa nga kon baax na maa nga jàpp waaw waddaa tàggu na axdaanu ay xaritam wan talaqa mu booy yeesaab mbiram dana mu diri hmm. addaana waaye lafiti mbubam xaari hmm. ne na fa talab naahu ñi sàkku ñi sàkku ko e min baadu ci gannaaw loolu bi rëyi ci rëyi xam nga ci dëkk bi di rëyu lañ daje woon ak moom da gannaaw gi wut nañ ko fi lool watam sor naa sàkku nañoo wisaare lemmi xabarahoo soloom fii min madaari ji tëyi ci taxañ taxañi leem leem yi barab yi nga xam ne làqoo kaay la jot nañ ko ba gëstu ba xam ndax dafa làqoom déet waaye fa maa fii naa nekkul ci ñun man ko xam ne arafa xam na xaraarahoo saxu waayam wala dara kenn ci ñun xamul ayul jaraade ana lan njëréer xaarahoo moo ko xalak waaye daal nana mes rek réer na xamatuñ ci mu